nga dem ci fo dem ci volant auto yi manam bagage bi ngay gis fofu nonu mu nek bagage bu ñak njëriñ ni koy liggey moy ñi gëna bon fil arde ci kaw suuf ndax ñooñu ñooy njabarkat yi ki bind baaxul ki fas baaxul ki sox baaxul ki tuuru baaxul ñom ñëpp ay iblis lañu wa junud iblis ajman ay legion yu bari lañu mbokk yi euh tey tay bi mo teel tele ñaat fan ci wër wi tey le 8 janvier ah tey samedi le 8 février waaw dañuy joxewaat date yi rek pour ñi nga xam ne ñoo topp daara ji ak vidéo yi waaw ci kàttanu yàlla incha allah euh, mbokk yi daara ji nga xam ne moo leen gane si tey moom mooy daara kennal yàlla mooy daara wéetal borom bi taara koo taala mooy daara ji nga xam ne moom moo jóg pour sauver jaamu yàlla yi maanaam ci lëndëm gi nga xam ne moom la ñuy dox. ndax bokkaale dafa nekk loo xam ni soo ko deyaalee yàlla nee na du la ko baal mu nekk nag loo xam ni du ko mu neex dox ko ndax lii boo ko jógalee ca ànd ànduloo ak yàlla maanaam jabarkat dañ lay korte nga dee dañ lay boole jinne mu sedd la ndax fii ñu taxaw nii jinne yaa ngi ñuy dégg njabarkat yi ñu ngi ñuy dégg waaye mënuñ ci ñun tus nag loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk xam nga oto boo ko buggoon a paanal dëgg-dëgg moteur bi ngay moteur bi ngay ñëw yàq su ko defé du mëna jall man nak ma nga tuddu Mamadou Lamine Diop juddu ci le 23 mai 1960 de len ko ngeen yobul ko kat yi nek ci kër yi nga ne ko bi joxe na turam joxe na datam Yang ngi liur dat bi la ngan nga xollu Nyom ci top ñom ñi ngay gis ni nañ ci feebar ñom ñep dara ji day mi ngi wëndelu ci dakaro manam pour njabar kat yi kat yi bari nañu ben façon bari way bo xamni ko ci gis rek fi mu nek ni kër gu baax lay am oto bu rafet lay dawal mënalu ñu doomu aadama yi tus ndax li ñu lay jox nii kat même boo ko amalee njëriñ da ngaa eggagul police rek mais booy egg police ñu koy dindi boo feebaree dem hôpital ñu dindi ko boo doon dem màkk tey doo ko yóbbu soo dee ñu tekki ko naka lay régler problème xanaa nit ñi amuñu xel nga ni ko nan laa war a def man ne da ngay jël ñaan yii ma lay jox boo yeewoo rek neel alhamdulillahi rabbil alamin sant borom bi taaraka wa taala nga ne waaw oustaz yow moom ñaan googu ngay joxe da nga ko natt ci xel wala ndax lu yàlla santaane la man la farata la ci bépp jàmm nga ne ma naka la nekkee farata man la dangay bàyyi xel ci ne doomu aadama yi bu ñu tëddee guddi maanaam ñetti doomu aadama la ñuy doon ci misaal waaye bu ñuy yeewu suba kenn ki day dee kenn ki day feebar kenn ki day yeewu ci jàmm bés bu yàlla sàkk loolu mooy am bëri na ku ne ni ñu fanaan bërset du fanaan bëri na ku ne ne ba suba ak du yeewu ci jàmm ndax dafa yeewu feebar mbaa mu dee kon yow mu yeewu ci jàmm yow yaa war a sant sa borom nga ne alhamdulilahi rabil alamin alhamdu cant lillahi ñeel na yàlla rabil alamin a kii borom bi fi te képp ku sant ñu daal lay dolliwaat loolu mooy li nga ay ngëneel léegi booy wàcc dal bi yaa ngi tàmbali bëccëg bu bees bëccëg bépp boo gis maanaam kumpale ci kii ndekki ndax dangay gis koo xam ni mi ngi toog di ndekki jàpp ne bu yeewoo rek maanaam si jàmm lay yendu deke dafa war a dee tey am keneen koo xam ni tey lañ koy tëj kaso am keneen koo xam ne tey lay feebar dem hôpital am keneen koo xam tey lay tukki ci dootul ñëwati kon nag bu ngoon jotee boo dellu seet sa kawlal ba toog bul jàpp ne ñëpp ñëw de xare bi am ñu daanu bés bu yàlla sàkk doomu aadama ci xare lay nekk su ko defee boo toogee ci kawlal bi loo war a wax aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim nga wax alhamdulillahi rabbil alamin nga sant borom bi tabaraka wa taala kon ñaari canta ngi néew yoo xam ni képp koo xam ne yaa ko sàlloo di ko def ca bokkaale wula sa borom kenn du la wax ndeysaan di nga naat comme garab goo samp sa buntu nekk boo xëyee nga sotti ci ndox bu ngoonee nga sotti ci ndox kon boo yeew ba sant sa borom booy wàcc lal bi neel onze billahi mina sheytaan rajim nga jàng faatiya benn jàng benn ayatu kursiw jàng benn falaxe ak naasi ci biir faatiya boobu ngay gis noonu ah, yàlla ci la lay jubbante ndax boo waxee dëgg sa borom yàlla moo lay defaral boppam boo ko ne iyyaka na'budu lan lay tekki yow rek la ñuy jaamu wa na nasta'inu ci yow rek la ñuy sàkku ndimbal bu fekkee dëgg la ci ku ndëbb ak ci lu feeñ yàlla moo lay teg ci yoonu siraatal mustaqim yàlla bu la jubbantee da ngay bëgg lu baax di bañ lu bon di bëgg lu baax di bañ lu bon ñu ñëpp ñu bokk daje ci ihdina boobu siraatal mustaqim waxandoo dëgg yàlla rek yàlla defar ñu loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk boo jàngee ayatu kursi yu yàlla nee na benn ayatu kursi yu asamaan ak suuf kon xoolal ma boobu sécurité nga jàng falaxe ak naasi mbirum dëmm foofu la nekk affaire sorcellerie foofu la nekk seet na insi wal jinne seen yàq yëpp foofu la nekk korte yi ak njabar yi ak seytaane yi yëpp mu ngi ci falaxe ak naasi loolu yàlla da koy nangu ci yow bu nekkee ci yow mu deñ bu nekku ci yow ñu def ko sa compte boobu askar kenn du la jox ñaan bu gën a kawe gii ma la jox nii loolu doy na pour nga sukkandiku ci pour mën a tàggoo ak sa galaaj yi képp koo xam ne takk nga galaaj sànni sa kaw jël lii ma soo ko defee da am jàmm comme ñun ni ko amee ndax ñun sécurité la ñuy doxee ndax lii kat boo amulee sécurité boo ko jógalee boo taxawee fii boo ñibbee doo nelaw ndax njabarkat dañ lay njabar nga dee léegi wala ñu boole ak jinne mu sadd la wala ñu boole jaanu jinne matt la loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk ñun nag comme dañu am sécurité ñun waa daara Kennel yàlla ndax dafa am lu ñu ñu orienté ci kaddu borom bi tabaraka wa taala ci ndimbalu yàlla subhanahu wa taala moo tax ñu mën a dox lii ngay gis nii lii mission spéciale la boo xam ni dafa jógal xërëm ak njibar bi isnillahi taala nekk lu ñu natt ci xel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 dana wàcc ay malaykaam ci ndëgalam ci ruuxa jaamam bu ko soob a nan ngay mel ba mu ñëwal la mu ne an ah, anzuru annahu laa ilaha illa ana fa taquni nañu kennal yàlla ànd ak nañu ko ragal kuy kennal yàlla nag doo njibar doo xërëm doo bokkaale borom bi tabaraka wa doo bokkaale mooy yàlla ak yàlla ak sama ndomb gi yàlla ak sama yax bii yàlla ak sama béjjën bi yàlla ak sama xàmb yi yàlla ak sama fas sama laar yi yàlla ak yàlla ak yàlla suñu xamb yi yàlla suñu taatu guy gi yàlla suñu taatu daxaar gi loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk gis ngeen guy gi ngeen a gis nii njabarkat yi bëree bëri dañ koy utiliser parce que li kay war waral mooy guyu mbooloo la ndax fi mu taxaw la daal loolu moo tax ñoom ñu bëree bëri dañu fiy def ay ay mbóot yooyu nag ay jafe-jafe la yoo xam ne jeex na tey ilaa yawmi diin képp ku ñëwati fii yaa ngi dégg di fa def mbiri kat affaire bi sa kaw lay këpp parce que daara ji moo bindoo noonu daara ji boo ko jógalee rek commencé am problème moo tax fi mu nekk ni jabarkat yu bëri dinañ feebar loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk ñenn ñi bu ñu tëddee du ñu jóg la ñuy dee loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk kii bind ak kii fas ak kii sox ak ki am béjjën ak ki am ay xamb ñoom ñëpp ci lañ bokk ñoom ñëpp benn lañu rek loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk iblis ngay gis du benn rek yàlla nee na iblis wa junuudu iblis ajma ay légions yu bari lañu doomu aadama yi sonn nañu boo demee kaso bi fees na boo demee hôpital fees na doomu aadama yi jubuñu doomu adama yi wéruñu ndax lu waral loolu mooy waxuñu dëgg seen borom da ngay wax yàlla ne yow rek la ñuy jaamu fekk yaa ngi am ay xàmb sa biir kër yoo yow rek la ñuy sukkandiku fekk yaa ngi sukkandiku ci xam yi yaa ngi sukkandiku ci fas yi ak laar ak bëjën yi ngay gis ni nii xarfa xuufa yi xuraafaat yi jaaj yi mbalit mii ngay gis ni yàlla nee na képp koo xam ne yaa ngi koy dund ja xam ko yàlla nee na yéefar ndax li koy waral mooy yàllaa ko wax nee na inna allaha niki moom yàlla yu daafi an allazina amanu inna allaha niki moom borom bi taaraka ko taala mu ne laa yuxibu bugul kulla lépp lu bokk ci xawaanin xawaanin nag moom mooy béjjën bi wala der bi wala karaw gi loolu mooy xawaanin xawaanin mi ngi jóge ci xaywan xaywan moo nekkoon nag wala xar wala béy ba muy dund la nekk xaywan bi mu dee la nekk xawaanin dafa mel ni nga ne nit ki ak néew bi bi muy dund la nekk nit ba mu dee mu nekk néew léegi nag euh, rab bi ba muy dund la nekk xaywan ba mu dee léegi nag yax bi wala deret ji wala karaw gi wala lenn lu bokkoon ci la doon dund loolu mooy xawaanin xawaanin nag kafarin da ngay daanu ci kufru